lan lu bees loo xamante ni yéen ngeen di proposé loo xamante ni yéen yéen a ko créé amul woon avant lan la lan la. waaw euh, en fait euh, lu bees lu ñu créer lu amul woon avant Sénégal bu fi nekkoon démb ak bërki démb moo fi nekk. ça je suis secteur yi structuré ak di articuler économie ak la vie sociale ñoo fi mm-hmm. donc moo xam ci wàllu mbay la moo xam ci wàllu santé la moo xam ci wàllu éducation la moo xam ci wàllu justice mais jamono suy dox. day am yu bees yu dugg nit ñi am ay exigence yu bees tey problématique bi gën a nekk problématique ci réew mi mooy problème de réconciliation parce que nit ñi xam nañ ni dëkk bi ay crise ñoo ngi fi ay division ñoo ngi fi. société bi mais crise yoo xamante ne hommes politiques yi mais non les hommes politiques c'est pas des extraterrestres c'est des sénégalais. comme vous et moi. non malheureusement c'est qui peuple qui les fait confiance. il faut que donc ce peuple là apprenne à écouter et puis à disséquer le vrai de l'ivraie. déglu bu baax programme ak projet ak profil ak parcours nit ñi. Mm-hmm. pour ne pas être berné. pour ne pas être berné parce que mooy li ma la wax dama la exemple bu c'est un exemple patent boo xamante c'était du sérieux parce que la coalition Aar Sénégal c'est une coalition qui avait un projet pour l'Assemblée nationale. bind ko dëgtal ko Sénégalais yi. mais pour des questions politiciennes euh, voilà et des questions de positionnement mm-hmm. les gens les ont diabolisés donc loolu tamit il faut pas que mu amaat tey ci élection présidentielle bi ñu jëm moo di même bu dee homme politique ñoo leen di fal yow tey da ngay toog ci télé ci média di wax pour Sénégal di apprécier li ñuy def ak li ñuy bëgg a def wala li ñu proposé donc ñun ñëpp ñoo ci am responsabilité parce que homme politique yi c'est pas des extraterrestres fii la ñu juddoo ci réew mi màggee fi yaroo fi jànge fi mais ñun ñi nga xamante ni dañuy ànd ak ñoom wala ñi nga xamante ni c'est des observateurs wala ñi nga xam ni société civile bi la wala ñi nga xam ne leader d'opinion yi ku nekk am nga sa responsabilité d'éveil pour que population yi xam ñi ñuy tànn lan moo tax ñu leen di tànn. waaw d'accord mais tout justement sur des critères politiciens wala des critères de am alal wala am doole mais sur une vision un programme et de la rigueur. Pape mu ngi lay programme. mais programme bi non d'accord naa ci bi dama ci ñëw les grands axes. que programme bi bu dee lire nga livre bi. non euh, egg jeexalu moo ko demee dama ko commencé jeexalu ko mais bon fekkee ni euh, xool nga ko de façon globale dañ ko tëgg ci ñeenti axe axe bi ci njëkk euh, autonomie stratégique la suñu coalition wax ni ci lañ war a dox autonomie stratégique nag yamul rek bu njëkk dañ ko doon yamale ci wàllu kaaraange ak sécurité mais yi am ci àdduna bi ci jamono yu yàggul moo xam la crise du Covid moo xam la guerre en Ukraine ak yi mu indi ci jafe-jafe suñu réew yi tax na ba ñun suñu candidat ak suñu waa coalition jàpp ni am na ay secteurs yoo xam ni c'est des stratégies yoo xam ni war nañ fa mënal suñu bopp aar fa suñu bopp. comme loolu mbay mi ci la bokk càmm gi ci la bokk napp gi ci la bokk. Euh, culture bi ci la bokk. sauf que andiwul lu bees. non dañuy déglu xam nga bu ñu la waxee ni la secteur bu nekk bokk da ñuy laaj secteur boobu noonu yéen lan ngeen ciy indi ci loo xamante ne lu bees la. par exemple par exemple par exemple ma loo xamante ne liir naa ko leer na par exemple la presse wax ngeen si ne. waaw ah, mais non xam nga mooy am te la lëkkale yëpp doo ci wax. parce que secteur yëpp jàpp nga ne am na lu ñu fa mën a def. loo xamante la presse de l'innovation. la presse tey tout le monde sait am na ay jafe-jafe yu nekk ci presse bi am na ko. am na jafe-jafe euh, xam nga loolu tey quoi xam non mais xam nga tey loolu président de la République bu faloo mais dina mën a toog ak les acteurs de la presse moom mu am gis-gisam waxtaan ak ñoom parce que mënul xëy rek jël décision nii ñu def ko imposer waa presse bi. presse bi lu ñu jàpp mooy am na ay problématiques yu fa nekk am na ay difficultés yu fa nekk am na un désordre qui est mais peut-être ce parce que presse bi relais la boo xamante ne tey dañuy fabriquer opinion. am na peut-être suba bu saay falo Aïcha boo mayee mën naa def une réflexion si secondes s'il te plaît. waaw euh, en fait pour man malheuru homme politique yi fii Sénégal xam nga lan la mm-hmm. cest à dañuy politique pour politique mm-hmm. képp koo xam ne dafay dugg ci politique aussi tamit day def répétition mm-hmm. doo gis kenn koo xamante ne peut-être Ousmane Sonko mooy dernières années yi moom moo ci ñëw euh, andi lu bees que gars di ko def Ousmane Sonko mooy nekk premier homme politique boo xamante ne di bind répétitivement ay livres avant ça n'existait pas mm moom moo njëkk a nekk homme politique boo xamante moom moo révolutionné lu nga xamante moom mooy réseaux sociaux yi massification numérique moom moo ko njëkk en fait am na ay yoo xamante ne moom moo ko njëkk a def avant les hommes politiques boo xoolee à part moom yeneen homme politique yi nga xamante ne ñoom ñoo fi ñëw dernièrement si politique bi que soit mu ne Mame Boye Diao mais bien que bon je pense 2017 dugg si politique bon si lu lu ma bind mu bind si livre bi euh, loo gis ay répétition la moom mooy ay loo xam ne ay réchauffé yoo xamante ne waxoon nañ ko wala bindoon nañ ko ñu jëlaat ko transmettre ko te pour man loolu moo tax d'habitude suñu état yi ak suñu société yi du ñu avancer parce que parce que société yeeg état yi dañu soxla ay xalaat yu bees yoo xamante ni moom lañu permettre reposer wu si loolu pour avancé tant que loolu amul dañuy tourner en rond corruption bi di gën a yokk politiciens yi di gën a détourner xelu nit yi askan wi di gën a ndóol te loolu boo naxaate la